julimbi e ko sayade awota joma sala ho ana awayi mala hoye daje goro ho jagas bete yen sena bete yen sena goro ho jagas bete yen sena mala hoye daje yen ko min ko Salut Lumière, lumière, lumière. بين الفراق مالك بفاق الجندينا دجا بوبدي بوبدي فال فاي فنان لا دجا مرسدان فليل البنان mbokku Bambey mais Moustapha Diop Moustapha Diop moom mooy classé boobu ba tey département ak commune mais xam naa Moustapha tey daa am problème ah parce mais fii xumb ah. Ah, mais finalement affaire bi dafa mujj grave ah oui je m'appelle il fait presque une heure du matin. jëndoo ko nekk ci naaj bi boobu ba tey di xool fu ñu toll tàyyiwu leen toppiwu leen taxaw bi xaar. mais gars yi kontaan naa le Sénégal est en train de vibrer au rythme du changement. Le Sénégal aspire au changement. La détermination se lit sur les visages. La détermination s'exprime à chaque heure de la journée, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Et ici, à Bambay, vous venez de nous démontrer que vous êtes plus que face du monde que le changement est inéluctable, mais aussi le remplacement par le candidat de la coalition des Kefal 2024 may ñu yegg ci le Sénégal bon à et beau à voir ñu mën de la première lettre qui débute ce programme à la dernière lettre qui finit ce programme avec précision, rigueur, sérieux, compétence avec le personnel qu'il faut. que ces propositions soient enfin des réalisations et qu'elles trouvent les Sénégalais et les Sénégalaises partout où ils se trouvent, que ce soit à l'intérieur du pays ou au niveau de la diaspora. xam ngeen ma ci le respect de mes engagements. Ah lu ma wax dama koy def. bu ma joxoon dama fay xuus xam ngeen ni pour développement wu Sénégal banuma ci kuma ci mel banuma ci kuma ci mere banuma ci kuma ci doxal bu xuus jotee dinaa xuus bu yendu ci naaj bi jotee dinaa yendu ci naaj bi bu nawet bi waree dal sama kaw dina dal sama kaw ndaxte yéen yéen a ma ko jaal le peuple sénégalais Mes chers journalistes, prochainement, je vous laisserai la lourde responsabilité et charge de faire la comparaison entre les mobilisations des différents départements. C'est vrai que vous avez apprécié la mobilisation à Kaolack pour accueillir Docteur Aziz Mbodj. Mais je reste persuadé que vous appréciez la mobilisation d'aujourd'hui. La mobilisation de celle de tout à et partout où on est passé. ñu ngi gën wane ni porté nañu espoir ci yàlla na yàlla mottali la ca des le 24 mars. di féliciter les responsables Thierno Ly le responsable Ndongo Fall di ko félicité Mame Sey Fall di ko félicité Fatou Thioune di ko félicité vraiment vraiment wane ngeen ñu victoire ko non yéen doole ngeen ko bàyyi

lépp lu war comme infrastructure ici à l'université de Bambey pour que nit ñi mën a jàng am diplôme et mieux bu ñu jàngee ba pare am débouché ci programme bi ñu tëral yóbbu réew mi engagement boobu ni daal ko def ba ngeen gis seen bopp ci réew mi. te nekk xam ne ni dans le cadre du programme bu jëm ci agriculture. am na yu bëri yu ci tënk bu gënalu Sénégal moom boppam avec agriculture bi nga xam ni daf ñu permettre ñu ñuy dundee ñu koy bayee biir Sénégal et ci loolu daanu réhabiliter ISRA daanu renforcer ISRA et pour wax loolu mooy daa renforcer également le CNRA parce que technologie moderne ñu wax pour mën am des productions un bon rendement il faut que ñu doter suñu centre yi ci technologie yooyu accompagner leen aussi au de l'État ci lépp lu ba rendement bu mën a am fenn avec suñu ingénieurs yi suñu techniciens yi dans le domaine du monde anglais, même dans le monde, et c'est heureux de voir que nous avons quelques dans le secrétariat national et qui est également de Bambay, qui est expert dans le domaine. wax nag ni bu doon suñu sago ñu fanaan ak yéen bu doon suñu sago duñ fi jógee mais xam ngeen ni Sénégal ñu bari ñoo muy xaar xam ngeen ni jafe na. waxtu bi nga mën a def 46 départements en 12 jours fi ñu jóge léegi am na ñu doon xaar wetu fële ca ngaay ñoo ngi jéggalu ci suñu camarade yi parce que bu leen toppoon duñu mën a yegg si fii ci waxtu bi xëy ay 3 heures du matin lañ fi jóg dañu mujj obligé dagg caravane bi foofu pour mën a dugg Bambey kon may profité fii di jéggalu ñuy doon xaar di leen wax ni bu may dem ndax incha allah dinaa jaaral foofu pour mën respecter sama engagement. kon lu neex du doy sonn ngeen am na yeneen lu leen di xaar fi nekk élection yi moo tax du leen téye xam leen daal ni Bambey moom comme département yu bari yi ma jaar xam leen ni wax dëgg yàlla. si quoi si laa leen. def naa leen ci sama biir xol ndax bu ñu yàlla may ndam daa leen gis ni ay waxu kese daa leen gis ni lu ñuy jëf la lu ñuy wane la comme niñ ko nammee jëf ci 46 départements yu kon ensemble avançons vers un changement qualitatif ay nit ñi di mooy bulletin bi nga xam ni ko bu ko jaawale mooy bulletin bu jaune bi ak lu mooy bii nii bii la de gars éducation bi bii mooy régler agriculture bi bii mooy régler industrialisation bi bii mooy régler cadre de vie bi bii mooy régler hygiène publique bi bii mooy régler stress social bi bii mooy tax ñun Sénégal gàcce balama mooy tax ñun Sénégal ci sous-région bi amul kenn ku leen mën et je prends l'engagement que boo leen ko bàccee ba mu mat sëkk ñu doxal duñ ci teg ñaar ba ñetti at ngeen xam ne ay naana ngeen si moom. di leen gërëm di leen sant et avançons ensemble jërëjëf et à très bientôt.